assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki taalib yi yéen dëkkandoo yi maa ngi dellu si tey di leen nuyu di leen sant di lu ma leen fi waxoon mu jëm ci dëkk bi tedd bii ci Tuubaa ne muy mu dolli ko warmaal dolli ko sàmm ci lépp lu fi yellut ndax borom dëkk bi su ngeen gisee bi ñu koy sëñ mu ne sefeet bàyyi bi warab yu xumb yëpp dikk ba ci digg mandi mu leen wóor ne dara nekku fi ab xàll ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def ci dëkk bu sell bii tuddee ko turam bu sell yii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonent bi lépp lu yàq jikko ak melo moo ko waraloon kon maa ngi leen di digal dëkk bii nu warmaal ko sàmm ko bu fi kenn def luy niru fo bu fi kenn def luy niru mooy yàlla waxoon naa leen fi ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg tama bu fi kenn sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn kar ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko seen si naa di leen ko waxati léegi nag am naa pas-pasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek moo ci suñu war a gor li fi borom di bañ feeg muy nooyi dañ ko koy bañ le li mu fi bëgg feeg muy nooyi dañ ko koy bëggalee képp koo xam nag ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy waraan ci yoonu ko saasa la ñuy defante yow teg nañu ci suñu bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baati moom saayir lay doon jëf sa saasa la la tàndal may jàpp te ne la wóor ne ca kaso ba nga jëm lëfa ngoogu nag loo xam ne mu dëggu ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu tiranga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ma nga ne danga ko fi def ku mu nag ci àddina ay ca booyee moom muy tey bu dee tey li fiy juddoo dana juddu tey du ñokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa ci silaan lu bokk lu dëppoowut ak li nga xam ne borom dëkk bi bëgg na ko fi képp ku ko fi defati la mu luy jural waatal naa la ci yàlla ne du jox fa saa si lay jub ndax dëkk bi moom borom li yàlla santaane doo nga taxal mu ñëw fi te moom la sàmm wa maa xalaqa samaa wal arda wa maa bayna wa maa zaahirin law aradnaa an nattaxisa lahu wan lattaxasnaahu min ladunaa in kunaa faa'iliin kon nag man lool yi mu bëggoon doon ko sàmm doon ko def loolu dong laa leen mën a jottali jottali gi ma ci sama warugar maa ngi leen koy jottali képp koo xam ne kii nañ ne jottali gii ma la koy jottali jot nga ci ba noppi te defe ne war ngaa man a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yéeram in uridu ila al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib bàllin ma damay wax ak